ñaax rek yéen ñi ci kanam ngeen muñ d'abord parce que Sénégal ku muñul doo dem ku jóg di dem il faut ñu wax la lu damm sa tànk defar boo doon def dangay bëgg bàyyi dem tëdd toog di xoole euh, Serigne Cheikh daf may wax ni ma ah ku yéeg de te ku la sànni doj nga wàcc delloo ko ko yéegaat ba ci digg ba mu sànni la xooxu sëddéem nga for ko delloo ko ko yéeg ba ci digg ba mu sànni la xooxu new nga wàcc delloo ko ko yéegati ba ci digg ba mu sànni la xooxu datax nga wàcc delloo ko sonal nga ko mais moom itam tere na la yéeg mu ni comme dana àgg foo xam ne bu lay sànnee di yegg si ci yow te ba noppi bu wattuwul ci dënnam lay dellu si bàyyi ko muy sànni rek te yow nga continuer yëg da nga foo xam ne bu la sànnee itam waaw Sénégal kenn mënu fi liggéey te sosaluñ la fenn ñu la wax damu say tànk nga mm-hmm. dem ba ci digg ba ñu wax la lu ñaaw pour nga décourager dellu gannaaw te ñi koy def doo xam ñana yoo xam ña na wala boo leen xamee tekk wu ñu dara ndax képp xam da ngay wax di sos di wax loo xamul tekkee too dara ak loo mën a xam loo mën a jàng ak foo mën a toll ak ku la mën a jur ak famille boo mën a bokk tekkee too dara su ko defee il faut ngeen muñ ngeen supporter lu bare bare bari door a mën a liggéey nag ah, waaye danañ leen dugal néeg yu ngeen dëkkul dañ leen sosal dañ leen teree wax lu leen teree dem waaye bu ngeen continuer te dem rek dana mujj ah ah dama doon ah waaw nga ñooñu wax naan la ah, bajo ko jàmbaar nga kat <laughs> te loolu rek moo solo su ko ngeen muñ te liggéey bi rek itteel leen nit ku baax dafay fexe ba lépp luñ ko dénk rek na ko itteel waaw mu def ca. fa ci yéenee def lu ko lu kenn deful woon am ca boobu yéene taxawu ko nga xam ni seen alal la waaye alalu réew mi la ñu dénk leen ko ngeen war koo taxawu dimbali ci nit ñi ñu dugg ci kaar yi mën a dem mën a dellu si ndax kaar yi fi nekkoon yu bari yàlla dogal na euh, ràpp nañu xaw nañu màggat ah li fi nekk doyagul yéen a ngi wut lu doy waaye itam ni ngeen ko waxee rek ndar li muy rafet rafet kenn xëyu ko tabax ci benn bés dañ doon dajale di néeg yi rek di defar ba mu xëy di capitalu Sénégal mel ni mu mel ñu naan ndar géej ndar géej ndar géej eh, su ko defee ngeen jàpp ba ñu bàyyi rek eh, fi ngeen dégg société ci àdduna bi bu ngeen mën a jëfanteel ci xeet yi te du leen nax du leen wor ngeen dem signeenteeg moom ay contrat mu jox leen ay kaar ngeen indi di tàllal seen loxo rek muy tàllalu ba Sénégal région yëpp am incha allah ci dem dikk ak heure yi ngeen leen di jox ak euh, na ngeen leen di jaaraleeg tali ya ngeen leen di jaaraleek yoon ak yooyu ndànk-ndànk rek lépp dana baax nga defee kon ñu ngi leen di félicité di félicité teewaayu ministre Abdou Ndéne Sall bi nga xam ne fii ci dëkk bi la dëkk maamam ci ñi wàccee woon Seydil Hadji Malick ci dëkk bi taxawu ko dogal ko ay kër yu mu mën dëkk mook njabootam kon lu ñuy def rekk ci Sénégal war na ca bokk mu ngi ñëw teew teewal président de la république El Hadji Far Sall ah jarbaat la suñu doom la doom la ci kër gi ma bokk comme ni ma ci nekke doom waaye nag mu choisir ma def ma wëllëreem boo xam ne bii bu amee xalaat dana ñëw ñu diisoo ci man bu mu amee xalaat lu jëm ci loolu muy doxal danga ci diisoog moom mu xàllal mi ci aw yoon loolu ku ko bañ doo dem ko defee ak suñu doom ji Babacar nga xam ni moom maam laa ci moom lépp laa ci moom <laughs> maa ko yar maa ko defal lu ne mm-hmm. waaw waa waajuram noonu maamam bi jur way juram mag suñu baay ma suñu teqali ko suñu baay moom lañu booleeloon ni lu ngeen mëru sa wax wax leen ko seen pap Babacar mu wax leen ko mu wax ma ko ñun ñëpp ku ci bëgg soxna sa ci moom ngay dem kotuwaayu ko di ko góor gi ne man dama bëgg am jabar nag mu ne demal toog mooy toog waxtaan góor gi boobu nit day am kilifa ñoo lay orienté fi nga jëm waaw soo bëggee yaa xam soo bëggul ñun la foofu la de ñoom ñëpp di njaboot ci xadra bi eh, tabaarkalla bokk ci dem dikk démb ba mu nekkee sotorak ba nekkee GG gouvernement général dañ ko doon tuddee tabarakallahu eh, supérieur mi ko yoroon daan def samedi bu jot ñaari mu ñëw seet si góor gi reer moom góor gi ni ah waa xanaa ngeen yóbbu ko boog ci saal bi yàgg siñ Mansour ngeen dem reer moom si ngeen balul ma ko àq ndax bu ma ñëwee bokk ci reer bi day nekk gëléem ci biiri béy nga defee maag sëñ Mansour ñu dem sëñ Aline Niang ndeysaan imam Aline Niang moo ñu daan servir servir yëpp féeréer laaj ko yow foo jàngee servir ah, man ci lii laa jëkke di ku kër gi am na lu ne nga defee day jaay day yéemu ci ni muy servire ni muy couper ganaar yi ni muy tegale ku nekk ci sa plat ndax loolu xam-xam la dañ koy jàng yaay eh, moom fekk na jàng na ko eh, bu góor gi masaam am am gan rek ñu ne woo leen imaam ñang ni ko góor gi am na gan guy reer seeg moom tey na ñëw servir mu bàyyi jàkkam bu jullee ba noppi gee dugg otoom ñëw servir ñaare tubaab bu mu servir dana laaj kii fu mu jàngi lii danaa loolu ci teraanga tubaab la bokk eh, ñoom ñëpp tabaarkalla ba tey mu tudd dem dikk yal na gën a barkeel yal na yaatoo yaatoo ba fi ngeen bëgg mu tàllalu fa yëpp mu tàllalu bi ñu génnee ci jumaat ji ñaan nañ ci ndax dama ni woon Fall dama ni woon dañuy indi kaar yëpp man ko loolu xaju ci dëkk bi <laughs> man ko quatre cent soixante onze quinze kaar man ko xajul ci Tiwaawan ma ne ko waaye kaar bu nekk bu ngeen ci dindee benn sax bari na mais bu ngeen indee benn mu yóbbaale yëpp ñu ñaan ñëpp bokk ci bu ñu génnee jumaa ji ci buntu euh, rawdu Serigne kër si bu ñu ñaanee teg ci loxoom moom moo xam fu koy jaarale la ngeen bëgg ca kaar rekk rek leen ko ci biir ñaan gi su ko defee moom moo xam fa koy placé te mooy fi leen gënal incha allah ñu di leen gërëm di gërëm directeur ci kàddoom ak taxawaayam eh, miinuñu ko lool waaye nit bu àddoo nga xam ko waaw loolu moo tax lislaam même mayul jigéen ak góor wéet waaye bu dara desul nga lu dul nga am jabar ne may na la nga dem toog ak ndaw si yàgg moom rek ngeen wéet mu waxu nga dégg su waxee rek daa xam kii dof la walla nit la <laughs> ñu door a def pas-pas bi nag lislaam may na la ko waaye ni mu waxee kontaan nañ ci Podor googu noonu la fa la Maodo jëkk jaar toog fa ci góor ga Mbóoj mët Mbóoj doo fay jógee jaar fa mu jaar jaaraat ndar dellu ci ndar jóge fa dajeeg waa Tiwaawan ñaan ko mu ñëw firi leen alquran ñëw firi leen alxaaji Baaba Ñoŋ di premier taalibeem boo xam ni am na teraanga ci tariqa bi bu ko Seydil Hadj Malick defal waaye jaare la ko ci loxo sëñ Babacar Serigne Cheikh ngi bindi benn téere tudde ko munyatul murid fi anna al xalifata huwa al xalifa ñu téere boobu alaaji Baba Ndiog moo tax mu bind ko ndax daf doon ñëw Tiwaawan sëñ Babacar ni ko ànd ak sëñ Moussa Niang mi doon ilimaan ni jàkk ji ak jumaa ji yëpp ngeen dem teeru ji Baba Njong mais bi mu wàccee li mu jëkk a wax mu dégg ko moo aynal xalifa mu ni ko mawjudun fil bayt mu ni ko mbaa mu ni ko mbaa xam nga ni xalifa mooy xalifa nu ñu yaroo ci Seydi El Hadji Malick xam nañ ni mooy xalifa mais di ko baamu nag la ko dale ca gaar ba ndax booba saxaar rek am ba bi ñu yegsi ci buntu saalu sëñ Babacar alaaji Baba Ndiongo mi ngi naan alxalifa huwa alxalifa xalifa daal mooy xalifa dëgg waaw mu dëgg ca nag bind ci sëñ Babacar benn livre tudde ko nag mun fii ana alxalifa te huwa alxalifa te tudd na ko ca lu bari ci ay barab ba tey mu nekk barab bu Seydi Hajj Maalik ndax Cheikh Tidiane ma fa nekk euh, mag la sax léegi waaye ak mu jot dana ñëw seet si bu fi fekkul sëñ Mansour fekkul sëriñ Cheikh it dana ma fi fekk toog fi bëccëgu lëm wala mu fanaan fi guddi lëm ñu waxtaan fàttalente mag ñi tàggali ko ñaanante ngir yàlla mu dellu podoor man ma toogaat di ko nekk at mi jot danañ ko def nga defee kon nag Podor suñu Podor la.